mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàcc waaye bu gannaaw bañ jugee Arène Nationale dañoo daw ñëw jàmm gan jàdd rek pharmacie Aïssa dañoo kuuc rek wàccaat mbar rek ñëw fi ñëw si si njaago or bi rek waaye dafa mel ne Laurent mooy njaago or bi ki la <laughs> njaago feeraay bëgg naa la naka tey maa bu baax di sant yàlla bu baax xam nga aja góor meex mu ñëw meex mu ñëw waaw mais Laurent gis naa ko Laurent bëri ñëw tey liñ doon xaar da defoo leen ko Sambu Diaga yow gis nga woon maa Sambu Diaga damaa Sambu Diaga de dóor naa ko ba toj ak gémmiñ bi mais mais maanaam door day neex ngay dóor ñuy fayu waaw mais moom xeexul deful dara dama dégg nga ne lim doon rab lim doon rab ñëw dama dégg nga ne lim doon rab bëreewu ko ko parce que bu ko bëri woon amateur yëpp nañ gën a kontaan dinañ xeex dinañ bëre. waaw mais dafa ñëw léegi ne amateur yi kontaan waaw kontaan nañ man de am ñu laaj ci commentaire yi nee nañ ndax Liss Ndiago dafa mos nekk guitariste. guitariste parce que nu ma ko guitaree ah. waaw moom mii di rap kay moom moo xam ay guitare ak yooyu laaj ko loolu loolu. yow damay laaj da ngaa mos a nekk guitariste. non non jigéen lañ koy wax guitar man mooy góor. waaw ah, guitar waaw moom lan la ko. moom guitariste. combat bi coow li bari woon. waaw làmb ak coow moom ñoo ànd. waaw làmb ak coow ñoo ànd. boo doon bëre yaaw jaal sax day bëri coow parce que man yàlla moom def loolu quoi. voilà. sa diggante Tapha Mbeur ñàkk tey nga ñëwaat wane waat beneen Liss Ndiago. waaw parce que bu ma jugee foofu noonu bu mu ñëwaatee damay wan nit ñi damaa juum parce que damaa juumoon. waaw pour wan nit ñi dangaa juum ne nekkul da toog di ko wax naan damaa juum da ngay ñëw jëf ñu gis ñu xam ne kii dafa juumoon xam ne kii màgg na si lépp voilà. kon su ma déggee sa wax Tapha Mbeur dala may doole may la xaalis. mayuma doole may wax man maa maye doole may la xaalis yaa ne ku la daan. man maa naan yaa ngi dégg dama lay daan may la doole may la xaalis. waaw yow ki la daan bu ma la daanee. dinga nga mer dem entraîné ji. Mhm. boo entraîné di nga am doole. boo ñëwee di nga bëre di nga daan te doole jooju noonu moo la may xaalis. kon maa la may doole may la xaalis. nga daan ardo si gitaar la ñu mën a jël tànk bi daw gitaar ko. nga bi lu mu dafa ne jeex na moo ko noo jeexagul eh. des na mu ne ko noo jeex na moo ko daa jeex nii mu ne waaw moo ko arbitre kon mën ko kontaanuma eh. saa lu mu doon wax yëpp pour man bu ñëwee day day gën a ndam mais tamit am na wax yooyu wax nii dama lay guuxal de kon ko mere billaay Ah. waaw maa ngi wax ak booy sax ñu ngi négocier nee naa ma songoo pare fa ma ñu xeexaat. voilà négocier booy nga bàyyi. baa ma dem. parce que mu doon wax léegi léegi joxu ma ko lépp. bul dem bul dem ah. sëñ Fall sëñ Fall. <laughs> fi nii. njaago fan la waaw bu ma génnee si néeg moom damay sangu dem tëdd bi. di nga sangu di say naataangoo. samay naataangoo si làmb samay naataangoo. ñoo xam ñoom laa war a bëreel si làmb. waaw waaw ah. kuy toog cinq ans. waaw laajal ma kii sama sama. moom dina ñëw non laajal ma ko mu la lu bi am na staff. waaye tam non am fu mu nekk. non xel bi nekkul fenn ñun ay comme ay xale lañ dañuy dañuy déglu ndigal rek ay taalibe lañ waaw ndigal rek la ñuy déglu. da ngeen daan ardo am ko daan loolu tax ñuy wax waxu laam parce que booy bi tey jamono ji mbooloo bi mooy di mooy diriger. am na mbooloo macha allah am na ay mag yu nekk ci kanam tamit. Mhm. ñooñu bu ñu waxtaanee ci biir nekk ba tenk rek booy mënul bañ dara. waaw kon maanaam daal sikkim la gëstu ko yóbbaale. voilà noonu kese lañ ko sant kese. kanaa bi ne yow sikkim nga gëstoo la yóbbaale. noonu la demee sikkim laa de waaw bu mag bu ñu gëstoo nii rek si laay mën a. dama dégg say biir wax nga def am ku toogoon devant public ne dootoo daan mbër. waaw am na ku toogoon ne dootuma daan mbër. te gi nga lu yàlla def maanaam fii yàlla moo fi nekk waaw maanaam nit ki yéen a ko jàmm parce que moom bu amee day yóbbul gàllam. pour toogoon devant public ne dootoo daan mbër mbër la wala du mbër. dellu ma mbër moo toogoon devant public ne liis dootul daan mbër. Eh. yaa ngi dégg pour wan na fii yàlla moo fi nekk moom dafa bëri fan yee ñàkk loolu ñaanalu ma ko dafa bëri ñàkk man mu bëri tey yàlla may ma ndam pour wane la maanaam lépp yàlla rek jàmm laa yéene ñëpp waaw nañ may yéene jàmm ko waa ñoom ñooñu yaa ngi waaw bu ñu làmb boole man na ñoom dañuy bëre. ki waxoon loolu. nga yow da ngaa bëre daan moom mu bëre ñàkk. waaw ki waxoon loolu xam nga ko bu baax. Ah, man kay xaw ma du ma topp di turam di ko may benn promo. waaw man joobee wu noonu quoi. kon soo tuddee turam la promo la. promo la waaw. moom moo toogoon devant public. ne yow dootoo daan mbër. te yow toogal nga nga nga leeral ko. tontu naa ko tey dama doon bëre tey ku daan du man. waaw loolu mooy tontu bi loolu mooy tontu bi. moom su mu jugee moom la concerné ay mbokkam quoi waaw maanaam yeneen néeg la borom moo ciy fanaan waaw ah. borom moo ciy fanaan quoi. tey jii jax tëgg la. da lay soog a tëgg wala waaw suñu père Jax maa ngi koy nuyu bu baax tamit. waa moom mooy doog a tëgg quoi. gis nga sa bopp waaw gis nañ si sant yàlla bu baax. waaw sant yàlla bu baax. man làmb damay liggéey làmb mooy sama liggéey. bu ma seet si waasoon jubóog samay staff kon du la ko kii waxee bu jubóo damay taxaat bëre tey si guddi laal ne buñ ma seet waasoon jubóog staff bi ñu ne ma takk barki alxuraan barki Serigne Sall ñu ne ma takkal dama bëre ji ma takk dama bëre ji guddi gi mat sa walla doo xulli yow moom lan la yow loolu la waxuma loolu la ah. ma ne la mm. maa ngi sant sa mbokk njaago yëpp ma ruuma njaxu tout man leenu ba yetu nju tout waaw di la won a njib mo ci nañ jàpp a bugg nañ jàpp di ko fuur waaw na lippal kàpp juko na fuur walla a kapp ci tega ci a bugg papa comme temps bi li ñu dañ la bëgg di sant ñëpp di sant suñu papa Idi borom Amerika di sant sama yaay Paul bu rafet waaw toujours moo wax leen ko di sant ami Afia bu baax di sant mère Awa Balla di sant Pape Gueye bu baax a baax a baax di sant Lansou Laada yaa ngi ne di sant ñëpp di sant Ngilaan borom asalem Grand Yoff Ngilaan Cissé waaw di sant képp kuy jàppale Liss Ndiago rek di sant sama staff bu baax wala gis naa coono yu si daj képp kuy bëgg Liss Ndiago di sant sama ménagère Alioune Gueye di sant ñëpp bëgg naa ñëpp sant Baye Fall ak waaw kontaan di sant seex Daaro Ndour ak Mamadou Samba bu baax waaw moom surtout Mamadou Samba ak Cheikh Daaro Ndour waaw combat bi seen combat ñoom laa ko doon maa ngi sant ñëpp sant mafia bi yëpp booy du ma lim seen tur parce maa ngi ñoo far waaw boo yëpp di sant Siteu bu baax a baax dugg nañ sa diggante ak moom ah dañ gis mu jóge aéroport rek ne suba lamb jara loolu force bu ko def la moo bëree bëri gàllam laa koy fekk ji billaahi suñu mag la kon yow lu may feex si yow ni may ñëw fi bu ma feexoon si moom xaas ma bëgg lu ma feex si moom bëgg ko dama koy jël exemple la Siteu bu ma lu ma feex si moom bëgg ko dama koy jël sama mag la parce que alal la mooy sama alal voilà combat bi woo nga ko si. bu baax bu ma ko wóol sax day ñëw si da yàgg si da son sama combat. si biir loo di wax. surtout loolu cap manuel. waaw ak campénal boobu campénal waaw sàmb in ba fu mu ñam. maanaam raison yëpp fu fépp fu kaso nekk si raison bi kaso kaso raison yi maa ngi bëgg ma am dama fa am lu may bëgg ñu bëri ay Fallou Ndiago Bar yaa ngi dégg ay Inzaghi. ay ay zaal zaal moo doon sotti gàllaaj yaa ngi waaw. Tafa ñibbisi na Tafa ñibbisi na sant yàlla ay baara likaana sama lonko di sant dembis ay Baye Mor al alquran billaay ay zaal bu rama bëgg naa ñëpp ay jaylaani Pape yee ay ami bërë yëpp maa leen bëgg ñu nekk si jeel bi di leen wax ne yàlla na leen yàlla may xolu muñ waaw yàlla na fa yàlla génnee fan yi néew te yàlla buñ def loolu fay fa mos a dem yàlla doon seen kump yàlla fa mos sa dem waaw yàlla maanaam képp ku nekk si ay problème sax yàlla yàlla def ndox seetu ba nga am la ba nga génn yàlla na yàlla di xiir ñëpp si jàmm yàlla na yàlla di xiir ñëpp si lu jub waaw yàlla na yàlla defaral jàmm lu baax baax di wax jeunesse bi tamit xam nga waaw jarul yàqamte waaw ku si nekk lu yàlla bind sa jër moom ngay am loo warul am doo ko am waaw te wërsëg kenn ko fokkati waaw bu dee yàlla maanaam sa wërsëg la di ko jot waaw di wax tamit nañ gën a góorgóor gën a liggéey waaw yàlla baax na ko waa di bëggee waat ñëpp di jaaraat ñëpp Sambour in nag ba fi mu yem 100 mètres Sambour in ba fi mu yem maa ngi bëggee ñëpp rawatina nag waa Sambour 41 maa di bëggee bu baax a baax Demba ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax waaw maa ngi bëggee ñëpp jeel bi ñëpp Tapha bu Liss Ndiago maa ngi lay bégee bu baax a ay Demba boo yëpp ku lim day jum barki alxuraan ñëpp ku lim doo jum ndax dul mosal waaw kese di bëggewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp Pape Gueye Pape Gueye maire Mbaaw mhm. maa ngi koy sant bu baax maire Fass Mbaaw Pape Gueye di sant tonto Aziz bu baax a baax di sant Magay bu baax di sant Fassé di sant ñëpp ñëpp kontaan naa baay di bëggewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàcc waay Xalil